rien à voir ak le fait que Ousmane Sonko ñëwul renvoi bi les les avocats de Ousmane Sonko dañuy jouer itam avec le temps li ñuy bañ mooy que procès bi teniru très très vite les questions de procédure yu ñuy soulever mais c'est à bon escient c'est pour que ñu mën a wax ak ki nga xam ne que ni itam moom mooy seen seen euh, seen client c'est tout à fait normal ñoom ñoom ñu def loolu maintenant li Moussa Sarr teg te man dama gëm ni si avocat wu Sénégal yi Moussa Sarr laa si gën a xam moom laa si gën a bëgg moom laa gën a miin moom laa te Moussa mooy avocat bi ma wax ne ma benn man du ma défendre nit si fen c'est c'est le langage qui me donc bi mu ñëwee dafa teg ni Ndeye Khady Ndiaye déglu ngeen ko démb mënuñu def procès tey mais Hippolyte Ndeye lui a dit mais man d'accord naa ak li nga wax saa c'est du droit parce que foofu bu ñu xasee ba dugg ci biir temple de Thémis droit la ñu fay wax foofu du commentaire journaliste ba du opinion publique du Macky Sall ñooñu droit la ñuy wax parce que ces magistrats là sont là au Sénégal di yeewoog ñun di dund ñun seen ay jabar seen ay doom nekk ak ñun am na itam loo xam ne ñoom dañ koy bañal seen bopp maintenant demande nañu renvoi nee nañu nañ dem ba semaine prochaine xam nga pour man kan la gën a arrangé renvoi boobu les avocats de sonk Sonko c'est pas l'état que ça arrange renvoi boobu ay avocats Ousmane Sonko ñoom ñooy déplacé wu dem Ziguinchor toog wax ak moom sa waay bañ ñëw bañ a teew baaxul si yow lii arrangé Ousmane mooy mu ñëw ca. procès ba toog du nom de Pape Moussa Sow toog fi suñu plateau di ko leeral ni selon l'article bu code pénal buñ la jugé par contumace comme prisonnier pour ñu mun a say avocat mun a interjeter appel mu ne pire également buñ la jugé par contumace c'est-à-dire la te yow mi accusé bi nekkoo fa mu ne say avocat mun nañ présent euh, dans la salle mais amuñu droit sax joxe li nga xamante ni moom mooy seen cadre c'est-à-dire présent mais amuñu pour plaider la donc dans ce Ousmane Sonko n'est pas cerné ci ñaari côté bu ko bu ñu fàttali ko c'est important li ma waxoon yegg si nekk terme li dootu woyuti li nga xamante ni mooy justice mais l'avocat comorien de Ousmane Sonko a changé a évolué dans sa position dafa ni notre client n'a jamais dit qu'il ne répondra pas à la justice dafa ni tant que mi ngi doxee nii muy doxee du collaborer ak ñoom pour moi glissement sémantique lexical boobu c'est extrêmement important ça veut dire quoi ñoom xam nañu ce que Ousmane Sonko en cours Sénégal bi ñu criminaliser viol ba léegi minimum dix ans lañ lay door bu fekkente ni que ni reconnaître nañu que ni tu es coupable boo amee circonstance euh, atténuante xëy na mu wàcc cinq ans mais amaguñ fi cinq ans dix ans jëm kaw rek moom lañ fi am donc li gën tey mooy ñoom ñu dem waxtaan ak Ousmane te gëm naa ni dañu koy def parce que Ousmane procès bi. mën na jox daaw procès bi Ousmane la gën a arrangé ko Adji Sarr xam nga boo demee euh, police gendarmerie enquête préliminaire ñu déglu la auditionné la loo mënti bu la neexee nga toog ni Ousmane Sonko moo ma tëddee moom ma violé dafa am ñaari arme lu la neex waxal mais bu ñu jëlee dossier boobu ba indi ko tribunal ba enrôlé ko ba mu ñëw le juge Moustapha Fall bu ñu ñëwee mardi loolu yëpp daf koy jël teg ko fee yow aji aji Rabi Sarr nee la tel doomu tel doomu diw nga ni waaw lii mooy sa liggéey waaw yow yaa porté plainte Ousmane Sonko pour lan mu ni viol ñu ne que prouve nous que ni Ousmane Sonko t'a violé dans quelles conditions Adji Sarr sera tenu de prouver du Ousmane Sonko moo koy prouver moom mooy prouver que ni waa ji violé na ma bu fa taxawee naan na waat ni que ni man ak moom mësuñu seqalal mës na ma tëddee loolu du viol tëddante ak viol du benn certificat médical mënul prouver ni violé nga nit parce que nit mën ngeen am rapport sexuel boo xam ne c'est violent fas kay buñ ko booleeg ku loo xam ne attanu ko après day am deret dana génn gaañu gaañu dana fa am déchirure dana fa am jigéen boo xam ne yow attanoo góor bi ngay dékku mais boo paree da am problème nañ ko waxante maintenant le problème moo même bu ñëwoon sax indi doom ni man jot naa accouché kenn yëgu ko doom jaa ngi nii mu ñëw duppi Ousmane Sonko 100 pour cent ca bopp baag ca sikkim baag yëpp du tax ñu ni viol am na xam nga viol fan lay amee Adji Sarr prouvé moom kat ba ñu ñëwee ba ñu seq ba nekk ca kaw lal ba ba commencé bay def dafa ni ko bëgguma je ne veux pas de toi waa ji ko force da nga koy def tant que mënul prouver loolu Ousmane Sonko est innocent. su fekkee sax Agisa tey présenté na comme par magie ay peut être preuve wala vidéo de leur élevage sexuel parce que nag gis nañ démb ci ci ci tribunal ba euh, ñu ñu wane benn salle bu nga xamante ni bañ nekkoon salle 4 bu bu palais de justice bi salle bu nga xamante ni installé nañ fa ak yëpp. donc ben gisee écran géant yeeg yooyu yëpp fa ñu dégg tamit ci ci avocat yi maître Etienne Sarr wax na ko ni dossiers yi ñu leen joxe am na audio am na tamit ay vidéo yi nga xamante ni moom la juge bi yore kon dans ce cas là est ce que mun nañ xaarandi ay projection de vidéo yu nga xamante ni peut être loolee mun na sulli euh, li nga xamante ni moom moo di intimité Ousmane Sonko. c' est inédit dans l'histoire euh, criminelle du Sénégal euh, am na ay audio am na ay vidéo ku nekk la nga xam na parce que bul fàtte ni que ni si si témoins yi MC Niass la bokk capitaine toure euh, nu mu tudd euh, Mamour Diallo euh, Sidi Ahmed Mbaye Ndeye Khady ñoom ñëpp ku nekk di nga ñëw wax li ñu échangeante Adji Sarr ak MC Niass boobu moo si gën a siiw dana ca teg mais léegi Adji sar moom dañu jàpp ni am na ay vidéo mais mën na woone vidéo biir Sweet Beauté Ousmane ba mu ñëwee ba sumeeku woddoo serviette am dugg ci biir toilette bi sotteeku ndox ñëw tëdd mu commencé ka maase moom Adji Sarr bu ko neexee na sol boxeur bu ko neexee na sol soutien bu ko neexee na sol string loolu yëpp ba léegi egguñu si viol buñ ko waree mu toog ci kaw Ousmane Sonko sax ba léegi viol amul viole bi daal mooy rapport sans consentement tant que loolu mënu ko prouver Ousmane Sonko n'a rien fait et devant le doute le juge Moustapha Fall ak ay assesseur am li ñuy laaj Adji Sarr mooy preuve tant que indi wuñu preuve son Sonko devant le doute il est blanchi. sukkandiku pour yàgg wax ni dossier bi dafa vide. non dossier bi mënul vide parce que am nay audio am nay vidéo ñuy indi mais voilà. exactement exactement le le docteur Alfousseyni Gaye nañ ko indi ak certificat médical am ak tout ce qu'on mais je dis la seule personne capable de prouver que Adji a été violée c'est Adji Sarr maintenant pourquoi je man ma bëgg Ousmane Sonko dem parce que devant le doute le juge va dire il est relaxé au bénéfice du doute mooy kaaw storndour te loolu bu amee Ousmane ne peut pas se retourner pour poursuivre Adji Sarr mais bu fekkente ni que ni dañu ko euh, relaxer purement et simplement doute amul ni rien il se trouve que ni véritablement li Adji Sarr wax dara amu si su boobaa Ousmane va se retourner pour porter ko plainte moom Adji Sarr l'État peut couper la poire en ñu ñëw juge yi interpellé ndaw si interroger ko gis ni que ni li mu wax dara amu si mënul prouver que ni dañ ko violé ñu ne Ousmane tu es relaxé au bénéfice du doute Ousmane dellu ci liggéeyam Adji Sarr dem boor bële l' état continuer tension bi wàcc mu des nag léegi Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang donc li mu def tey ji pour s'en sortir moo di mu présent déjà ci li nga xamante ni moom mooy procès bi euh, man man jàpp naa ni Ousmane euh, bu dégloo ses avocats il va se présenter c'est que il a c'est lui qui gagne dans cette histoire-là c'est lui qui gagne fondamentalement ñëw taxaw il n'a même pas besoin de beaucoup parler la question qu'on pose que ces avocats vont poser à Adji mooy prouver que ni yow tu as été violé ni mu demee moom jàpp nañ ñoom jàpp nañ ñu tey ji moom ak ñi mu àndal jàpp nañ ñu tey ji Macky Sall moo nekk derrière pour écarter ce que tey jii comme déjà am na boobu gis-gis ci boppam mu naqadee dindi loolu ci xelam est-ce que kon dans ce cas là mu des naa wóolu justice bi comme ni man Ousmane gëmul justice man gëmuma ko prenons la l'affaire Mame mu paree dafa noonu du ma fay Mame un na tëdd foofu di nelaw fifteen fukki dërëm du ma ko commencé ko TikTok et tout mais on lui a dit tu as jours francs yoo xam ni boo interjeté wulee appel on considère que condamnation bi c'est définitif te du dem na pourquoi mu dem boo warulee justice doo dem Ousmane dafa am lu mu moom mooy le combat politique la riposte politique les stratégies yooyu moom moo koy teg moom ak ñoom Cheikh Tidiane Dièye mais ces avocats xam nañu yoon lan lañ ko may tey jugé par contumace jugé par défaut l'essentiel mooy qu'il se présente s'il ne se présente pas il est jugé su boobaa juge bi bu ko nee sax mu tëj ko vingt ans de prison Ousmane doot si mën dara mais bu ko avocat yi expliquer les tenants et les aboutissants de son absence à la barre man gëm naa ni il peut venir se présenter maintenant nag bu ñëwee ba sur place mën na def stratégie ci seen abré ñu wax ko mu ni kii nawlawu maa du ma wax ak moom wala yéen les membres de la cour wóoluwuma leen gëmuma leen je ne collabore pas avec vous je ne réponds pas à vos questions loolu c'est possible mu ñëw taxaw su boobaa ces avocats auront la latitude de faire leur plaidoirie comme cela se doit mais absence bi moom euh, je ne suis pas d'accord te gëm naa ne bu ko conseillé euh, il va venir. présence su aji Sarr ca tribunal ba ci sañse beeg ci ci ci ci ci ci ci ci sérénité bi euh, ci sinap yu noonu def ci biir tribunal bi noo ko jàngatee. nga aji neexul bañ aji neexul bañ jigéen la de. gis nga man si aji saar laa gëmee ni xaalis mën na faj nit xaalis mën na faj feebar yu bare aji lan la woon jànq masseuse nga xëy benn jour am huit huit nekk ci appartement yu bakkane am garde corps yow penda yow yow yow yow penda amoo garde corps <laughs> man amuma garde am ay garde di dund dund gu neex penda du cons dootul jënd aji dootul consommer léegi ay euh, euh, café fukki dërëm ak ay kii ay wasak yooyu non ci beneen level la nekk mais buy ñëw xoolal depuis mu commencé génn la première fois mu génn tout en rouge robe droite bu baax te nga xam rouge lu muy def si góor. changement de situation yooyu moo waral nag ñoom ñu jàpp ni dafa am ay gros bras yu nekk derrière. Ah, mais naturellement y a des gros kooku kooku biti la faral Adji Sarr à elle seule def nii. naturellement il y a a il y a déjà derrière. est-ce que kon bi nga xamante ni Sonko yàgg na ko wax. non ko comploté que comploteur ñoo nekk derrière Adji Sarr oui. comploté wu que Sonko guddi ba muy jóg di dem ci Adji Sarr Macky Sall nekku fa ñun ñi nekkuñu fa woon damay di wax ni la dernière personne bi mu waxal balaa muy dem si Adji Sarr ci wàllu yoon lay liggéey xaritam la. ñu jàngandoo miinante lool booy damay dem maa ngi dem eh, may ma jàmm waaye damay dem non foog ma gis ko bàyyi ma dem foog ma sama yaram dafa laaj massage tey da nga dëgër boobu dawal mu boobu Macky Sall nekk fa keneen nekk fa ab si coobare boppam la demee maintenant nag dafa am foo xam ne boo fa tolloo man loolu laay di reprocher Ousmane dafa am boo xam ne foo xam ne boo fa tolloo di cristalliser des espoirs ce peuple bëgg la jeunesse bi Ousmane Sonko jaral leen lu nekk tu ne dois le flanc surtout bu la wóoree ni que ni yow ñi nga jàkkaarloo duñ la may dara Ousmane Sonko c'est l'homme le plus persécuté au Sénégal il est persécuté jusque dans son propre lit mais loolu dafa am yoo xam ni euh, waroo di ko may ñi nga jàkkaar lool parce que ñoom duñ la may dara lu ndaw tarfatal ay nit dañ koy exploité et ça il l'a compris après l'affaire Adji Sarr ci ci comportement am démb mu nekk li nga xamante ni depuis loolu nag am nañu mu choqué cest dire ñu ngi doog a gis tamit ci ci ci histoire viol accusé bu ñëw comme sa à ah, l'aise waaw mais ça fait ça fait plus de deux ans nag xanaa aji li muy wax bëgg na war na dund euh, travail psychologique bi am na aji boo ko xoolee xam ni kenn yi am na ñu ko jàngal prise de communication en parole en public boo ko xoolee kenn yi xam ni aji am na suivi psychologique mais au départ rappelé wul aja bi aji bi mu njëkk génn naan je réclame le procès je réclame le procès une voix fluette mel na xale buy wax c'est différent de la Adji Sarr qu'on voit aujourd'hui bi muy njëkk dem ànd ak Gabriel euh, Gabriel kan ak bi muy dem sol lu rouge ak aji bi woon demb aji bi woon demb góor bu nekk Sénégal boo ko gisee sa nekk na si moom njool na jekk na elle est bien sculptée elle bien faite boo ko xoolee xam ni que ni kii mi si état bu fekkee Ousmane Sonko daf ko xamoon ba mu nekkee masseuse bu ko gisee léegi dana ne mais ndaw si soppeeku la loolu moom nañ ko nangul aji c'est pas une une femme vilaine tuuti moyen bu ko amee day dem te yàlla def na ni léegi am na moyen yooyu léegi nag l'histoire du complot Sweet Beauté moi je dis que Macky Sall n'a jamais été à Sweet nañ ko nañ ko wax quoi am na yu ñuy tuumaal Macky ak yooyu mais kooku problème la xam man dama naan la différence entre Macky Sall Ousmane Sonko la force de Macky Sall fait la faiblesse de Ousmane Sonko la force d'Ousmane Sonko fait la faiblesse de Macky Sall Ousmane a le peuple Macky n'a pas le peuple euh, Macky euh, cette force de de de de de de de, de pouvoir s'entourer d'un maximum de garanties ñi ko wër amul kenn ku ko si xamal dara xamuñu fu muy dem naa ne ataay xamuñu ndax yàlla ma yàlla baal day fréquenté lii day dugg fii kii mooy sëriñam loolu Macky Sall daf ko dencal boppam Ousmane nag n'a pas su se sécuriser à ce niveau là moo tax bi affaire Adji Sarr bi jàllee nga gis mu changer totalement sa façon de faire. D'accord, ci loolu nag euh, c'est important également de le